ab xibaar bu tiis rek jëm ci famille Seck ndax nag nga xam ni moo di soxna ay dara nekk soxna rek ci ki nga xamante ne si nag moo di Wally Ballago Seck moom mooy nag dafa daal di ñàkk rek waajuram bu jigéen mu nekk xibaar bu tiis lool bile information sax nag ki nga xam ni moo di Wally Ballago Seck moom nag moo ko daal di annoncé ginnaaw ba nga xamante ne si nag def na daal soirée ba noppi yemu ci loolee sax nag daal na daal di xam li ay boor minuit lañ ko daal di yëgale bile information wante it moom moomee di xamle sax nag am na lu ko metti lool wante te foofu rek moo daal di respecté li nga xamante ne si nag moo di contrat am ndax nag loolu yi nag mooy daal di liggéeyam wante ca loolee sax nag ci la daal di xamle sax nag nekki rek ci dimanche bi soir rek du daal di am ci loolee nag équipe bu Dakar Buzz ñu leen koy jaale. lamb lu ne. man góor du asale góor du ma paquet du biscuit. benn doo ko yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix duur prix duur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxuma laaj nag ñu dugg biir. foo rek léegi maa la gën a xotteeku fuuf. xotteeku yow man man may yàqu. la wax man damaa yàqu. waaw maa la gën a xotteeku. ñu tàngoo yàqu di dee.